waaw tey dañu fi tase fii ci hôtel Pullman doon lancé suñu euh, produit bu ñu tuddee Agricash muy benn plateforme boo xam ni dañ ko sos ak suñu benn partenaire bu tudd Stat Solution ñu ciy liggéey nag ñaari at yëpp ba tey ñu toll foo xam ni jàpp nañu ni war nañ ko mën a bokk ak public bi ndax wax dëgg yàlla depuis avril 2019 ba léegi ñun ci biir téléchargé nañu applicatif bi lépp lu ma def ci transaction rapido facture ci laa ko def te euh, wax dëgg yàlla test yooyu gis nañ ci résultat yu am solo donc tey nag ñu woo public bi yëpp suñu ay partenaires ñu ngi leen di remercier au passage ndax ñëw nañu bu vraiment ñëw bu rafet pour bokk ak ñun loolu nga xamante ne lu yees la banque agricole développé ko mu nekk loo xam ni euh, jumtukaay la bu am solo ci li nga xamante ni jàpp nañu dana dimbali suñu client ak képp koo xam ne citoyen sénégalais la am na soxla ci def transaction moo xam day fay facture moo xam day jënd crédit téléphonique moo xam day day recharger carte euh, rapido ci Eiffage et cetera yooyu yëpp ay besoin la yoo xam ne muy transfert d'argent am nañ ko te lancé nañ ko dina nekk loo xam ne yaakaar nañ dana ñëw mottali suñu liggéey bi ñu xamel ci wàllu mbay ndax ñun banque agriculture la ñu suñu kër de métier mooy yëngatu ci chaine de valeur yi mais chaine de valeur yooyu nag am nañ ci aussi ay soxla yooyu yaakaar ni walet bi dina ci mën a jouer maanaam Euh, aujourd'hui testé nañu ko déjà euh, ci campagne de commercialisation ceeb bi passé danañ ko gën a confirmer agro-industriels yi nga xamante ni ñooy jënd ceeb bi ci béykat yi dañ leen di jox loo xamante ni ñuy tudd module web bi nga xamante ni moo nekk ci internet bu ñu ko téléchargé seeni comptable mën nañu fay ñi leen di indil ceeb ci plateforme bi te du am benn ayib dina am sécurité kenn du kenn rang te dinañ mën a jël seen euh, xaalis ci seen wallet agence bu ñu dem wala distributeur bu ñu dem dañ leen mën a fay te loolu yaakaar nañ ne avancé la ñu ngi koy natt aussi ci wàllu euh, darkase donc muy noix de Nacarde ci région de Ziguinchor ñu ngi ko bëggoon natt aussi ci gerte gi malheureusement gerte bariwul ren moo tax defuñu période bi ak dem mais ci gàttal daal bëgg nañu ci wàllu agriculture ci wàllu chaine de valeur ci wàllu àll bi ñu gën a mën a lëkkoo ak opérateurs yi am nañu ku ñuy liggéeyal notamment ci wàllu hydraulique villageoise benn concessionnaire boo xam ne dafa am aujourd'hui concession de ce service public di gérer forage yi au niveau de Kaffrine commence nañu liggéey pour que abonnés yu yëpp mën a fay seen euh, facture au travers de la plateforme Agri Agricash donc loolu yëpp ay avancé la yoo xam ni ñu ngi ciy liggéey te lu new di ngeen gis yeneen nouveauté bu soobee yàlla. DG taxaw seetlu am na ku la laaj ndax kaaraange bi bàyyi ngeen ci xel waaw kaaraange bi moom moo gën a nekk suñu ittee depuis le départ ndax ki ñu ko seqal muy Tat Solution euh, wax dëgg yàlla xarañ na ci loolu mais aussi am na moom ay partenaire am yoo xam ni dañ leen wax dès le départ que ñun lu ñu bëgg mooy mu am sécurité ba tax na bokk na ci li nga xamante ni euh, dañu koy recommander souvent mooy bala ñuy tàmbali sax ñu def lu ñuy wax audit audit boobu banque bi lancé na ko fay nañu benn opérateur sénégalais mi ngi koy def pour que lépp loo xamante ni lu ñuy wax vulnérabilité lépp loo xam ne point faible la su ko génnee ñun danañ ko reprendre jël ko en charge loolu aussi am na solo parce que ku ne xam na ni fraude dafa bari te fraude day yàq. kon loolu vraiment suñu préoccupation la te nag du jeex liggéey la boo xam day continuer ndax affaire fraude moom euh, boo toogee di nelaw keneen mi ngi essayé mais ñun am nañu expérience bu doy et puis préoccupation bu am solo ci wàllu prise en wàllu sécurité.